waa dama juróom ñaari sëriñ Fàllu doy na muslaay allah jeey allah ji Fàllu laay man de yow laay doxantoo di la kaalawoo sëriñ Fàllu sangoo Alaaji Fallu Mbàkke mooy ñaasi kanam daale loo sëlëm sëlëm du luy deñ ma naan waayam du ñee waayu keneen mbaa muy xaddi di feneen nooy sëriñ Fallu Mbàkke mooy banque te du fab di jën ci ca banque du ma sëriis alaaji Fallu Mbàkke moori sama sëriñu yaay laa alaaji Fallu laay tiitaroo di kasagóob moom Fallu laay sëriñ Fallu dama ko alaaji Fallu dama laa dama laa dama manaan su ma lay way sama xol dafay noos day noos su lay wayantoo sama xel day gindeeku yaakaari nongolo yaakaari meer wara saar yaakaari pammo njaay bataala alaaji Fàllu mooy yaakaari aset pilor faay now now now yee waa dama ne ndaanaan ba teela reer man moom lay jooy ndongo sëriñ Fàllu ndongo guddee naay ndaanaan ba teela reer man moom lay jooy ndongolo mu sëriñ faalo ndongo guddee naay jam jalo jaaji faal ma samba neena faal jam jalo jaaji faal ma samba neena faal ndongolo bu Sénégal ndongo wëy na bu yaay mareetu faal Sénégal xalam de moom a bay neex bu ko moom nongoloo mu sëriñ Fallu Mbàkke lay way ooy nongolaay mi seerooy manaan caatum 2005 ci la ko sunu borom jël manaan la seize janvier tombeloon moom nongoloo moom nongoloo naan la woon manoon way lool baaxoon lool manam jili ñan jooy weet isay noo asaan ñëpp a jooy weet nongo loomu sëriñ Fallu Mbàkke géejawaay jooy faal jooy sunu yaay gaynde wàlla jooy na yal na ko yàlla at ci yërmandeem naan naan ba teel a wëy noom na wëy na ne naan naan ba teel a man moom lay jooy nangu loo mu sëriñ Faalu noo ko wëy na ni naan ba teel a man moom lay jooy nangu loo mu Sénégal nangu loo bu Pikin nongo lobu ada géewel nongo lobu afrika nongo international nongo gambia rongo rani nongo atlanta nongo bagi mam sheikh lay mooy nongo boy bagi sëriñ fallu moy magi tala nongo moy taw ci ay boy ko jooy ba way moom ndongo li ma koy ñaanal mooy yal na ko yàlla àtte ci yërmandeem te la mu mënoon ci way yàlla sédduñu ko yàlla sédduñu ca lu ndongo mënoon ci way aay ndongo loo mu bàyyi mbeen ndongo way na ni ndongo loo bu Sénégal ndongo way na ni Nongo lobo Africa, nongo way money. No.